asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum adduna salaamaaleykum cher internet de la Médina TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar amaat mbégte jàkkaarloo ak yéen fii ci kër Massar noor unité parcelle euh, Parcelles Assainies ñëw tey seeti suñu yaay ci euh, euh, émission boo xamante ne c'est un peu waaye balaa loolu dañ koy bàyyi mu nuyoo rek moom tamit su ko defee mu wax ñu rek lan moo tax mu woo ñu fii tey ayca yaay booy ñu ngi lay nuyu. ok maa leen di fay salaamaaleykum a ngi ngi nuyu maa ngi leen di nuyu di gërëm di sant ci. ñëw bi ngeen fi ñëw waaw man maa leen soxla woolu woon ndax am jàq ak jaaxal sama doom sama taaw lañu jàpp taqal ko jàpp ko ci condition yu metti te xaw ma lan la def moom bañ ko jàppee ba yóbbu ko gendarmerie Kër Massar dugal ko ci biir sax moom si boppam jàpp da koo jaaxal ba mu ne man lan laa lii lan la ak man lan moom fi indi lan lañu def ma sœur ne ko yow yow moom noppil yow moom noppil ba mu génnee ñu yóbbu ko ci giri bi tëj ko man ma ne fa nag bi ñu koy jël si fii niñ ko jëlsee dama ne man sama doom lan la def bi ñu koy yóbbu ma ne fi di jooy di def ni yaay di def ñu ne ma bu yaay amul looy jooy kii dañuy dañ koo ñëw di visite di xool ci moom daal dañ ko xoo taqal ne moom da koo yor jarul ngay jooy buñ demee buñ ko gisul si moom dina ñëwaat ma ne waaw loolu moom mën naa koo dégg waaye man bi ñu koy dégg taxul man maa ngi jooy parce que xam naa lépp dañ koo taqal tuumaal ko jël turam yóbbu ko ci kaw jël photom dugal ko ci réseaux sociaux yi bind turam site yi daal di ne kii mooy rassemblement ñi nekk Kër Massar di def ñaawteef loolu taqal la benn bañ ko ñëwee jël si ko yóbbu ko Kër Massar dugal ko ci ci ci kii giri bi may wax ak mesure bi di wax ak ña fa ne dañ ma ne dañuy xool ndax moom ci la bokk wala bokku ci bu ci bokkul nañ ko bàyyi. bokk ci benn am na preuve parce que jour boobu bi affaire bi xew bi muy wàcc daje naa ci dëkkandoo ñu benn duñaa am na sax ku ci toog ku ne fii moo waññi kooku ne foo jëm kooku ne ko yaay daane ci xew bi moom laa jëlee mu a ko bañeekul parce que dëkk bi a ngi tànk tànk dëkk bi bu bu bu si génn mun ne ko man sama yaay laay jëlee ci xew bi ndax xam naa sama yaay yëgul li xew. kon loolu preuve la ñu ñëw fii gisuñ ci moom leen ñu yóbbu ko boobu ba léegi ma nga saamet ñu defeere def ko euh, mandat dépôt ci ñun xamuñu lu mu demee xamuñu lan la xamuñu xam xamuñu lan la def moom si boppam ku ñu yóbbu ba ci biir nga naan waaye man lan la kon xaw yoo xam nga ne yëgoo loo def rakkam yaa ngi fii bés bu jot même bi ñu ko yóbbu gendarmerie avant ñu koy jàllale defe naa yaay xale yi bu ñu manifeste amee bu ñu yaay manifeste amee bu ñu génn yaay jàppal xale yi bu ñu génn kon moom demul ci manifester am na ci preuve bu leer bu ko bu wane na moom demul ah jàpp ñu ci moom lenn loo xam ne dañ koy jàppee di ko tij foofu di ko yóbbu 100 di ko def mandat dépôt ñun nag loolu la ñuy laaj lan la ak di ñaan képp ku ñu mën a dimbali ci lii ñun yaay yi sonn nañu parce que ku nekk xam nga ne kaso nu mu mel kii sama taaw la amul dara di taqale ubbi orange moo ne boobu démarré wu ci benn xaalis bu am solo. xam ne Orange Money kese mënul fay luwaas mu teg ay kafem ci kanam bu Orange Money bi di jaay ay kafem di ci condamné bu weer dee mu mun a fay place bi xanaa ñetti at a ngi nii mu ne ci Orange Money bi munu cee am lenn ndax amul dem am amul fond bu dëgër bu mu si duggee waaye deful lu bon waxul lu bon taxawaalu dëkkandoo yaa ngi nii ku nekk xam na ko bu la rombee dugg nuyoo bu rombee wàcc bu buy xëy wàcc mu nuyoo dem place bu wàccee ñu si biir kër gi mosul sax taxaw police mosul taxaw gendarmerie xanaa defar bañ lu la jekk lu la bett rek mën la man mi seen yaay xaw ma police xaw ma gendarmerie xaw ma ju xaw ma xaw xaw xaw ma loolu kuñ tooñ sax damaa la bàyyi rek yàlla parce que yàlla moo mën a àtte mooy yor justice bu mag bi waaye ñun lii dal si suñu kaw metti na nag metti na torob li mu mënee mettiwul metti na parce que fu ma jaar dossier bi dafa nangam dossier bi dafa nangam dossier xanaa moom balaa ñu koo chargé dossier di ko defal ñu jàpp ko ci dara waaye koo xam ne jàppoo ko ci dara. foo wax ñu ne la dossier bi dañ ciy def dossier bi dafa diis dossier dafa nangam ah si xale boo xam ne yow defoo lu bon waxoo lu bon ah jàpp ñu la ci lu bon mosuñu laa jàpp ci police mosuñu laa gis ci lu bon koñ baa ngi nii ñëpp mun nañ koo seede man keroog ba mu ko affaire bi dalee laa xam ne ban doom laa am ñëpp daanu jóg daanu sama kaw ku ne wax ku wax wax ju rafet ngay wax te saxaluma kenn suukar. te moom it defalul kenn loo xam ne da lañ dañ koy waxal lu baax li mu def rek lu baax lañ ko waxal xale nag boo xam ne xamul kaso xamul justice xamul yoon ñu dugal la ci kaso ah te yow yaa ngi dund ak lu ngay dund di ko dund ak sa waajur bu góor di ko dund ak sa waajur bu jigéen sa waajur bu góor retraite am juróom-ñeent juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar yu tegal courant teggeewu ko fayum ndox teggeewu ko dépasse teggeewu ko yow nga nekk taa waroon ko xaa defaral munoo ko koo defaral sa yaay feebar yore ay garab yi mooy jël chaque mois munoo ko koo jëndal ngay dund naqar yu mel noonu di dund souffrance bu mel noonu ñu boole la cee jëlal la tëj la ci biir kaso ku ne mettiwul dalaa dalul waane metti na ba ci kanam yàlla metti na ba ci kanam yàlla. Hmm. bul jooy bul jooy yaay. aca mi ngi noonu kon yéen a ko gisandoo yaakaar naa ne sax moom <laughs> yaay bàyyil noonu bul yaay bësanteel ak sa xol soo waxu soo waxul li nekk ci yow mu génn nit yi duñ ko mën a mën a kii am yaay yaay déedéet waay bul yàq sa émission boo defee nii doo mën a wax li nga bëgg a wax lépp déedéet muñal rek soxna si mu mel ne kon yow témoin nga ci mbir mi ndax jour bi nga xamante ne mbir yi mi ngi xew yow tase nga ak euh, ki nga xamante ne moom moo tax ñu toog fii tey mën nga ci gën a ñëw ci nu mu gën a yaatoo. waaw mën naa cee ñëw ndax man bokk naa si ñu ko mujjee gis maa ngi leen leen di nuyu d'abord ci euh, maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant seen fii. maalaw nag man maalaw laa gën a jàpp am na ñuy wax aali jatara naan maalaw mais lenn daal mun naa kaa wax bokk naa suñu ko mujjee gis euh, avant bi ñuy taal bûche te ci école bi fii la seen wattu kër muy ñibbisi moom ak euh, ay waa groupe am ñu mu foowandoo da ay xaritam fekk boobu maa ngi génn juste dem ci bitig bi di jëndali sama doom bi goûter ma génn ñu ne ma manifeste am na ci laay génn tas ak ñoom fii ñu wàññi ma ñu ne ma yow manifeste am na fooy dem man leen sama doom laay jëndali goûter en même temps sama yaay mu ci xam naa ne xamul ne manifeste am na dama koy jëliwaale ñu ne ma déedéet ñu wax ma wax ñu wax ma ne déet bàyyi ma dem jëli mais bi ndax wóoru comme que manifeste am na bàyyi ma dem jëli ko ndax xam naa na topp neexaay xew mi ba du xam lu xew ci dëkk bi ñoom it ñu bàyyi ma ma dem ma dem jëli ji ko ñu ànd ñibbisi boobu moom it moo ngi toll fii juste rek seen kër muy tourner pour ñëw fii après bu ma toogee euh, trois jours ma dégg ñuy taal bii si la bokk effet bi jaaxul parce que man bokk naa si ñi tasam moom muy ñibbisi maalaw lenn laa mën a wax si moom mooy xam naa ni ku baax la ku nangoo liggéey la demul fenn demul dikkul ko ku ko bëgg a seeti ku ne da ngay fekk ci palaasam bu wàccee mu këram toog jàpp ñaamuram loolu moom ñëpp a ko seede moo tax effet bu mu amee dafa jaaxal ñëpp nattu nag moom du wees nattu du wees mais lenn rek la ñuy ñaan mooy que ni yoon def liggéeyam te bàyyi ko mu delluwaat ci ay activité am comme yaayam nu mu ko waxee mooy mag te yaakaar bi waajuroo am ci moom yaa ngi dégg yàlla bu ko suñu borom tas génnee ko mu dellu si waat continué ay activité am loolu la ko ñëpp di ñaanal ndax lii bu tiis bi mu bu mu ko dalee dafa metti ñëpp parce que koo xam ne deful waxul xamul luy police xamul luy li li li ci yoon maanaam bu bu bu nekkee ci ay problème daf daf lay jaaxal moo tax mu jarañu ñun ñëpp ju génn di wax si moom loo xamante ni moom lañ xam ci moom lenn daal lañ xam ci moom mooy que ni manifester yi ñu ko yi ñu ko tuumaal ci la bokk mooy ñi taal biche yi bokk ci takku ci ndax man moom loolu mën naa kaaseer ndax bokk naa si ñu ko gisoon bu muy ñibbisi ñoo ngi ñaan yàlla nag yàlla ko suñu borom génnee foofu mu nekk génne fa mboolu mu jëli Aïcha ba tey ñi ngi waat ak kenn koo xamante ne rek la ci ki nga xamante ne moom mooy concerné bi dañ koy laaj rek euh, tuuti ci li nga xamante ne jot naa xew moom tam wax ñu li nga xamante ne bëgg na ko cee saani Aïcha waaw man salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku nekk tur ak man la Arona Samba footballeur international sama mag lañ téye bu fay problème bii suñu lakk fii nii Kër Massar ñëw jàpp ko si quoi alors que ni affaire ba muy am ba mu manifestation ba muy commencé si la tëj place pour bañ booy bu ñëwee yàqu xam nga booy léegi ñuy manifester ak ñuy yàqu bokkul mu tëj place am ñëw di ñibbisi ba fekk ma fii nii ne ma booy mbaa génn sama raq mi mbaa génn ma ko déedéet mi ngi ci biir. loolu am na ay témoins ñu bëri yoo xam ne mën nañ ko seede mun nañ am ay témoins yu bëri mais loolu taxul veille kii bi ñu ñëw jëlsi ko ñëw si kër gi visiter ne dañuy xool xaw ma cocktail molotov xaw ma xool nañu si yëpp gisuñu fi dara amuñu benn preuve si moom amuñu benn preuve léegi ñu téye ko def ko mandat de koo xam ne soutien de famille la koo xam ne tey mooy jàppale paa si dépenser ak yenn kii man mi footballeur laa mais ren sama saison dama ko mujjee arrêté di def cag ndax moom lu mu doon def. parce que man maa ngi doon football lu mu doon def man instant amul ko ko ci jàppale ci maire maa mujjee arrêté football bi may def di def cag-cag su ma ñëwee jàppale ci maire bi dara maa mujjee arrêté lool te da loo xam ne deful dara bu defoon sax ñu mën a wax mais deful dara amul benn amuñu benn preuve boo ne mën nañ ne lii moom moo ko def parce que loolu ba muy am heure muy am yëpp am nañ ay témoins yoo ne mën nañ la seedeel ni heure boobu laalewu ci demu ci musul dem manifestation bu ñu interdit musul am tey ñu ñëw jàpp ko bugg ko def mandat de dépôt si loo xam ne deful dara laalewu si mais ñaan nag gaa kii autorité yi ñu jàppale ñu si parce que lii nii àq la te baaxut parce que dañu fekk soutien de famille koo ne mooy jàppale papa yaay ci courant yooyu noonu nga ñëw jàpp ko fekk ko place am bu di daan doole nga ñëw jàpp ko bëgg ko tuumaal si loo xam ne defu ko laalewu ci takkewu ci jegewu fa place am ak foofu mën na xaw ma ñaata met dem bu affaire yi commencé la tëj place ñibbisi ñëw ci kër gi ñibbisi ñëw xool xale yi ndax kenn demul wala kenn génnut kër gi après nga bëgg a ñëw ne kooku moo def lii te buñ buñ buñ defoon enquête yu sérieux dinañ xam ne kii deful parce que ay témoins yu dul jeex ñi ngi si mun nañu seede ni kii heure boobu noonu ak lool bu muy am yëpp fii la ko fekk waaw loolu laa amoon li may wax di ñaan ak sa autorité ñu jàppale ñu. waaw loolu laa amoon li may wax. tey ñuy waat ak keneen koo xamante ne xarit la si ki nga xamante ne moom mooy concerné bi dañ koy moom tamit mu ñëwoon ñu tuuti waaye man bëgg naa ko benn poser benn question. mu mel ni que kon moom euh, nekkul ci ci ci marché dama bëgg a xam en fait ndax si marché yi lañ ko jàpp wala bi bi affaire yi dalee lañ ko fekk fi mu nekk dem jëli ji ko. bon d' abord maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di rafet lu teewaay bi bon pour pour gaawal Ali place lañ ko fekk bi ñu fay fekk ñu trois lañ woon parce que matinal bi moom nekk fi woon sax. parce que jàmbaar la bu xëyee day dem des fois bu dem place bi daa am orange money ak café des fois day jaayale ay t mu xëy matinal dem euh, Petersen di jënd ay t-shirt bi mu demee Petersen ñëw après man ci laa ko fekk foofu dem station ñëwaat ñu toog fa ñu ñett ci la gars yi ñëw rek débarqué noonu ak seeni oto seeni i voiture ñëw bi ñu ñëwee sax dañoo ñëw rek monote ñu noonu ah. ñëw rek monote ñu dañoo ñëw fekk ñu toog rek ñëw ana borom place bi mu ne maa ngi nii ñu monote ñun ñëpp ñi fa nekkoon ñëpp parce que on était trois là-bas. boobu boobu marché bi. boobu y par pas de marche marche amul woon parce que ñun dañoo toog xam dara amul woon hmm. parce que euh, euh, bus yi am na ay bus yu ñu taaloon fii quoi Kër Massar bus yi taal nañ ko après y a deux jours après je pas trois jours. ñu continuer di def seen ay patrouilles. deux jours trois jours après fekk ñu ngi doon def seen enquête. léegi bu ñu ñëwee jàpp xamal ni tamit bu fekkee defoo dara bu ñu la ñëwee di jàpp comme que yow da yaa jaa ngi jàpp ne defoo dara mu ngay rafet njort nga ne no y' a pas de souci comme que brigade de recherche la boo demee ba foofu après bu ñu defee seen enquête la bàyyi. mais à ma plus grande bu ñu jàppee ñu dem ba foofu ñuy dérouler seen enquête mais là on a su que ne moom lañ gënoon ciblé parce que moom après dañ ko indiwaat ci biir këram ñuy def patrouille ne dañuy seet ay cocktail molotov ci biir kër gi. te moom man loolu moo ma ci gën a métti sax parce que imagine toi yow sa yaay say rakk nga ñëw indi ay oto dugg ci koñ bi mel ne ku def lu rëy lu muy suscité dafa bëri quoi te xamuñu yaay feebar na wala ay raxam xamoo nu mu demee ñëw jàpp ko noonu ñëw ñu ñëw dugg ci kër gi vérifier ba sonn gisuñu dara après ñu indiwaat ko léegi nag man li ma doon jaaxal mooy ñun lan lañ lan la ñu téewee lan la ñu jàppee li ma gën a naqari foofu nag mooy ce qui révèle benn animosité bi nga xam ne dafa nekk si ñun sénégalais. parce que bi ñu demee ba laajte waa ji bu ñuy defal euh, bu ñuy enquête ñuy rédiger PV yi ñi ngi naan ko ñun lan lañu def waa nañu y a un source qui nous a révélé que ni yéen ñii di toog ci kafe ga yéen yéen a taal bi <laughs> source. Mhm. te dalay leer ne loolu maanaam café ga Ali fi muy jaayee place bi am na patriote am nay benn boo benn bokk yaakaar. ay paa ay maire ñëpp a fay toog ñëpp mais nit nag mënoo ñëw fekk ko mu ne man kii laa bëgg kii laa kii laa bëgg kii laay àndal nga jàpp ko ne ki muy àndal baaxul wala nga bëgg ko cee toroxal ci noonu man loolu laa loolu moom ma gën a metti parce que jàpp naa ne tey jii lii yëpp bu amee kenn moo dem ci brigade de recherche ba ne fa ñii ñoo def nangam ak sàngam te effecté loolu amul parce que loolu bu muy am Ali soutien de famille la du xale bu ndaw magum jëmm la moom à chaque fois ay manifestation di am sax balaa dara di xew day tëj palaasam ñëw biir këram toog parce que xam na ne manifestation yi des fois day rax te li ciy am dafa bëri te tamit munoo nekk responsable di génn di dem ci ay manifestation di sànnante wala ay taal ay bus ak affaire yooyu noonu man du tu comprends même pas man mii dama liggéey woon te tey jii man ak sama moroom bu doon keneen ak keneen tamit li ma li ma dal mënoon na leen dal parce que ñun nee nañ leen sax yéen. heure bi ngeen fi ñëw mënoon ngeen fay fekk ñu bëri parce que fii ñu bëri fii toog paayeeg meereeg ñëpp a fay toog parce que foofu débat bu fay am place publique la débat ay débat yu ne lañu lépp la waxtaanee lépp dañuy toog waxtaan kafooree moo fa am mais loolu daal te li ma si gën a metti nag mooy boobu ba léegi nag ñu jàpp ko yóbbu ko brigade de recherche après ñun on a fait vingt quatre heures ci lendemain bi le soir ñun si la ñu bàyyi parce que ñun suñu dossier nécessité d' enquête moo ci nekkoon kon jàpp naa ni moom lañ gënoon ciblé mm-hmm. parce que photo mag je sais pas lépp mi ngi fa woon mais loolu loolu <laughs> pour man ki ko def ku ko xam la de en plus tey jii même bu fekkee nit dafa ñëw en fait accuser une personne comme ni ngeen ko waxee oto bi ñëw ñu def recherche gisuñu si moom dara pour man y a aucune raison ñu téye ko fi nga xamante ne ma nga fa euh, parce que nit buñ la buñ la accuser même buñ nee diw dafay def le pire que ça sax te fekk ñu si yow loolu amuñu benn droit téye la mm-hmm. non c'est ça ñun mais loolu moo ñu métti loolu moo ñu jaaxal tamit parce que Ali quoi qu'on puisse dire dossier bi lañ ci teg lépp dafa bari te defu ji dara des troubles à l'ordre public appel à l'insurrection atteinte à la sûreté de l'État association des malfaiteurs imagine-toi te quatre chefs d'inculpation loolu lépp ci xale boo ndaw boo xam ne defoo dara soutien de famille nga nga nekk jeune nekk ci sa famille jékki-jékki ibbi sa propre entreprise di ñafe mu début bi mu metti lool muy góorgóorlu di ñafe teg kafem gaa yu bari di wax place bi metti muy ñafe ba place bi dem ba am li mu am nii am benn tur ci koñ bi place bi bazar la tudd Orange Money moo fa nekk da daa am multi service di jaay kafe dem di jaay t-shirt place bi dem ba am benn tur ci koñ bi nga jël kooku noonu jàpp ko bëgg a sacrifier laay fam ci nii te boobu ba léegi tamit mu ngi bëgg a yàgg ça fait mois presque ay dix ou vingt jours ba léegi Ali mu ngi biir rëbës biñ ko jàppee yóbbu ko après ñun bu ñu bàyyee. ñoom ils ont fait presque quarante huit heures ci brigade de recherche bi après ci lañ leen yóbbu tribunal pikin ñu def trois retours de parquet. amul jugement. après ci lañ leen mujj dóor mandat de dépôt te yaa ma gën a xam mandat de dépôt jamono ji kaso bi nu mu mel. Mm-hmm. te ndeysaan ma li ma ci gën a. ay appel yi ñu ngi def seen liggéey avocat yi ñu ngi def seen liggéey mais tamit. xam nga des fois doo xam réew mi nu mu tëroo nit koo xam ne defoo dara da nga ciy topp dangay wax bay bëgg dee da ngay daw ba sonn avocat yi yow sax sa bopp dangay mel ne ñii ñi ngi def le tout ñoom tamit mais affaire yi doo comprendre saa yoo ko seetee ndeysaan lenn la lay wax day dalal sa xel ne la maam Cheikh anam xool ma mère xool ma xale yi man loolu rek la may dénk billaay wallaay ndax xam naa ni bëgg na yaayam bëgg nay famiyom bëgg nay raxam te man li ma ci gën a métti mooy xam nga nit sunu borom day def dara ci moom maanaam nit koo xam ne mën na nekk caat sunu borom mën na ko jël ci kër gi mu doon taaw aali sunu borom loolu la ko defal sunu borom da ko defaloon maanaam moo maanaam mooy koo xam ne dafa am kilifteef mooy gérer ay rakam te yaa ma gën a xam jamono ji léegi dafa doy waar da ngay am say rax foog nga am ku leen contrôler papa yi ak yaay yi dañuy toll benn âge boo xam ne mënatuñ wala duñ xam léegi foog nga am kenn ci famille bi koo xam ne moo leen di contrôler moo leen di teg ci yoon ñuy mën di jaar ci yoon bu baax am na ay raxu yu jigéen am na ay raxu yu góor saa yu ma ko seetee loolu la may jàpp xoolal ma xale yi defal ma nii mère bi mu ngi noonu say loxo léegi nag ñun daal franchement sonn nañ trop jaaxle nañ ñi ngi ñaan tamit autorités yi wala képp ku si mën a jàpp ñu dimbali si loolu incha allahu rabbi nuyu. maa ngi leen di fay. yaay man euh, dama bëggoon xam comme euh, ni ma nuñ ko waxee depuis sànq rek yow mi nga xamante ne kilifa nga ci moom ndax bi nga xamante ne ndogal bi wàcc na ci moom sol ngeen seen daal dem seeti ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi nga xamante ne euh, ŋànk ŋànk nañ gox bii nii parce que tamit bu fekkente ne yéen yéen a fi nekk te ci gox bi ngeen bokk yu mel nii bu dalee seen kaw te tegul tamit yoon la ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite gox bi tam ñu am fu ñu leen féete. maa ngi leen di nuyu. leen sant seen teewaay di wax si li nga wax li ñu dal dafay nguur kenn mënut a wax ak moom nguur kenn mënut a wax ak ñoom waaye lépp lu ñu war a def def nañ ko te dañoo jàpp koo xam ne xale bu baax bu yaru man may aaw yaayam yaayam topp si man waaye fekkoon da ngeen gën a yaatal di ngeen xam kan mooy aali fekkoon da ngeen gën a yaatal walla ba mbir mi amee rek leen ngeen ñëw di ngeen xam kan mooy Ali Ali sàccul Ali toxul Ali naanul réewul pewul jox na ku nekk cëram man soo ma gisee moom danga naan man maa ko jur nga naan man maay yaayam xale yi noonu jaarul dara si yëfu xale kenn mësut a gis Ali def naka sadul noonu wala taxaw di xuloo wala di xeex lii ñu dal nag metti na torop torop torop metti na ba si kanamu yàlla mooy liñ ko jàpp ndax keroog bañ fi ñëwee suñu fekkoon ko am kar rek da ngay dee ndax yenn taal biis taalu leen biis fekk nga ko palaasam jaxat jaxatee bagaasam yëpp monate ko indi ko ba si këram te suñu amoon kar jaag rek dañuy dee wala tension buy rey yàq bagaasam yëpp si loo xam ne du benn yoon man ba ma gisee ñu jiital ko wallaahi dama defoon dafa def dégâts boo xam ne mën na rey nit wala leneen ndax ñi ñëw fii rekk ëpp nañu quinze personnes jàpp xale boo xam ne deful dara ci caaxaan bëgg yaayam bëgg ay rakkam keroog ba mbir mi amee jabaru seexam bee ndax sama doom ji ak moom aali Aliou Seyni ak Ali ay seex lañu dañoo maase yàlla def ñu déggoo a ngee toog dafa ne ah waaye Aliou tàppet nga de mbir mi di am mbir mi di am ngay ngay ngay ngay daw di toj mu ne yii ay saa mbir mi dafa doy waax de dëkk baa ngi tàkk koo xam ne nag daa waññi nit ñi ñëw di xool ay rakkam bu kenn génn bu kenn dem si si mbir mi su dara amee bu kenn génn ku si tëb a génn da dóor dóor rakkama ngi taxaw Ali Mbaye su demee foofu su ñëwee da koy dóor da leen di xas yi woo leen lu nekk mu leen koy wax ku bëgg ay rakkam baax na xam nga ne du bon te muy taawu yaayam mu bëgg ay rakkam baax di leen yedd di leen jaarale yoon su dara amee dara xewee si dëkk bi daf leen di kondaane si biir kër gi kon suñu ñëwee ana borom palaas bi maa ngi nii rek ñu condamné ñu ñu ñu ñu monote la xamoon loo def xamoon loo wax keroog bañ ko indee fii yaay ji daa jooy ba daanu ma ne ko jógal xamoon ndax da am tension te borom tension du daanu jógal toog nga wéeru ah lu xew ñu ne ma ne ma nii seen loxo ñun ñëpp ñu teg ñu ci digg kër gi ci naaj bi ñun famille bi yëpp ci naaj bi la ñu nekk loolu tamit rafetul. bëgg nañ ñu oyofal xale bi fi mu nekk du palaasam fii mu nekk du palaasam jàppee nañ ko doole nag jaay ko doole yóbbu ko foo xam ne du palaasam dañuy ñaan yàlla yàlla génne ko foofu dañuy ñaan yàlla yàlla génne ko foofu ndax foofu du palaasam te dafay taawu yaayam nag dafay taaw boo xam ne bëggul dara dara dara lu metti yaayam yaayam soo ko xoolee rek da danaan loo ko xoolee dama ko ñee sax man dafa ndax dafa jafe dafa jafe si njaboot dafa jafe si njaboot keroog ba mbir mi amee soo leen fi ñëwoon di ngeen xam kan mooy aali wala soo leen yaataloon tey jii di ngeen xam kan mooy aali li ma waxoon rek toxul naanu sàccul fenu deful benn dégât boo xam ne bu xale di def xuloowul xeexul kenn xamu ko si xuloo wala xeex keroog ba mu amee danga naan fii xëy na am na lu fi xew loo xam ne nit ñi dañuy jaare si walla leneen su ñuy toogee ba saal bi fees jóg ñeneen ñëw soo leen joon boobu di ngeen xam kan mooy aali aal nag dañuy ñaan yàlla ci suñu xol li ñuy wax si suñu xol lañ ko tibbi yàlla génnee ko fi mu nekk loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla génne ko fi mu nekk ndax fi mu nekk du palaasam keroog ba ma ko seeti jee sax damaa jooy mu ne ma gogo bul jooy man defuma dara lii dafay sama jaar jaar rek. ñaan leen rek te bëgguma sax nga ñëw ndax fii dafa metti ba ma génne yaayam ne ma mbaa jooyoo di yëngal ali man ko jooy naa de ndax munu maa bañ a jooy jooy naa du ma fen jooy naa mu ne bu leen jooy ma ne ko ba ma jooyoo loolu la ma wax ne ma goggo bul jooy bul jooy fii lii sama jaar-jaar la rek man defuma dara ma ne ko wallaahi jatara defoo dara wallaahi jatara defoo dara fekkoon def dara moo lay indi fii wallaahi doo fi toog waaye yàlla na la fi génne suñu ñaanee ñoo ngi ñaan yàlla yàlla bu mu sooy ndax xale bi xale bu baax la xale bu baax bu xam ay waajuram xale bu baax macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat tànk yi mu jóge woon yàlla na ko yàlla yeggaleen yàlla na ko yàlla yeggaleen waaw jërë ngeen jëf jërë ngeen. merci beaucoup.